يسر لي ميسر وسيري مختاروا لي بلا مسيري يسر لي ميسر وسيري مختاروا لي بلا مسيري يسر لي ميسر وسيري مختاروا لي بلا مسيري ولا لعين لسواء مدبرا بما على ذريته مدبرا ما توجه المكاري ليا باخن هبا بذكري وهو ليا عن وردي وعن بلا مكاري ولا بدني غير جاد شيطانا من كلام مال ولوتانا فلني غير جاد العين يسوع صالح بيننا فبيدينا maa ngi nuyu mboolem mbokk yi ñoo ko tëdd muy mag muy ndaw muy góor

تطق باسمي di di ci ñaan suñ borom musal la ci ñett ndaw loo xam ne dana yàq sa àdduna yàq sa àllaaxira yàq sa sa bakkan bis gii jangan jox ngeen dama ngi ci suñu kanam nekkul ci suñu gannaaw la Sëriñ Tuubaa bëggoon def ngeen ko fi mooy jàng xasaayid yi nga xam ne gannaaw alquran gannaaw hadis gannaaw alquran ak hadis gisul lu ko gën a kawe yett yooyu yëpp nag daje na ko tey ñu jàng ko fi kon na ngeen rafet njort bu baax ci seen bopp wala kon nam rafet bu baax ci sunu bopp sëriñ bi moom bi mun nañu fi lu waay fab jëme ko ci moom jàppal ne àgg na ci liggéey bi ñeel nañ ni mooy teral at mi nga xam ne nii ci la dab bi di ci jaamu yàlla bu wér di ñaan mu musal di nootal liggéey nag seytaane ba yàqu dara kon sant moo war a ñun ñëpp ndax mujj na lool muy seytaane waxtu woo defee ne jekk nga ko dana ba ñu ko moom jekku la nanu ba yor bi koy lislaam harus dia punya luy bëggub sëñ tubaa mu nekk def ndax ak bëgga muy bëggub suñu mau ibu bëggub rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy bëggub képp ku baax barab bii doon ngeen fa tey jii bu baax ak ya, kawe fa boromam ndax nah, liggéey tao kasi di bisa daw ako ng bisa niya ang ba niya niya po na what is about take it to the amu yan na bumendin sa ito ba lamang ito lang yan na dapat ko rin sa ilay na lakas ay kami na sa buro mo yung ganit kama ni ka dito kaya ang nadole kaya ang mga doy kon naan rafet njort ne li nu bëgg defal nañu ko muy xëy yenn ci ab liggéeyam nan sant bu baax li ñuy jëkk a sant muy waajur yi képp koo xam ne sa waajur yarmala irle kiryo bayakte yamana doja ya, bo sewa juru ole dok mana doko faymuku kondulu mana titera liri di dem jire nyana jire sakala isarah kun solu يسدنا على غيره بين Bina بيننا dunia tenang kan di doli namsak di bagian di tebeno di ile islam ini kini maka kata bukan iya ini sama rumah senegal lulul dam kayak bahu Astagfirullahaladzim ñàkk yërëm ñàkk yërmande yi baaxul kon man man def benn ci diine lislaam defaat benn ci diine ci ci liggéey bi ak yeneen pas-pas yoo xam ne yi ñu ngi ko suñuy xol lu àll ci réew mi nan wattandikoo xeex nan wattandikoo xuloo نمرقله xeebal nit soxla ndax nit ki boo bëggee ma ànd ak yow bu ko ne saay bi kon ma wàcc la ko ndax lu jàpp ne baax boobu nga ko wax gën na la koo def kon bii su ànd ak koowee waaye bëri na bu la see ñëwee la bëgg muy orang nga nekk ci xaw ma topp sa wet ànd ngeen ànd wuti yàlla bëggante yi nant sax loolu tam

lu bari ñu di ko laaj laaj ko képp koo ko war a laaj ci bopp jógee nëbb sa laaj te ko téere di ko jëfandikoo kii ma am muy sëñ Tuuba lépp àdduna ak àllaaxira dafa nekk ci loxoom waaye ku am fulla la ku am fayda la ku ko jar a jox rek ko koy jox du ko jox ku ko yàq ki ko yàq lu yàq li bañ a jëfe ndax ko jëfewut faw yaa koy caaxaan te koy caaxaan kenn mënu koo defal kon naan góorgóorlu bu baax ci sàmm dénkaane yi góorgóorlu bu baax yi bëgg suñ suñ suñ diggante ku ne na bëgg moroomam bi def ko doomi ndeyam àgg ci bu dee doon ñëw ñu ne kenn dana dee ci ne la sama morom jàll ne naa naa naa ko deyal moom moom loolu yëpp doxin la ci ba nga xam ne bii ëllëg dana leen jariñ fa sunu borom dana leen jariñ fa Sëriñ Tuubaa waaye wax ji di ko neex te nekkul ci saxoon yooyu nañ ko tekkee amul benn benn solo li ci muy doy ci yàgg naa dee wax ay jullit la jullit bu ne nag war naa bëgg moroomam ànd ak moroomam forom bu jàkk rek na nga xam ni ab jullit dafa nekk te jullit bu tege ci yoon du bañ du bañ moroomam jullitam mukk nanu góorgóorlu ko du nu bañante te nanu bëggante te dimbilante kenn laay ko ne la man borom boobu ko naan xiif naa ina reerol wala ngay ndékki wala nga def sa wala nga yor ko mën jox bu ko denc biir ëllëg ndax sun borom ñu lay jàng jox ko sa borom moom mu lekk ko ba mën def jaama ji yàlla kon yàlla fay fay ko anhu muy waxtaan ci loolu waxtaan bu yaatoo yaatu ba tax na lii loolu si ma soxla ko bu jógee wuti sëriñ bi bu ma koy tudd sëñ Saaliw laa ca jublu waaye sëñ Tuubaa la mooy ñëpp ñëpp lu moom ku ca amul ku ca mag moromam am na waaye ku ca gën moromam amul ndax sëñ bi doon joxe te ñëpp na yàlla def ñun ñi nga xam ne nag ñun ñi nga xam ku dikku rek ne sëñ budi ಗುಡಿಗೆಯನ್ನು ತರು ಬುಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಾ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಮುಂದೆ itu ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿಸಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ dari itu kata pilih ini begitu dalam Quran itu dosa bukan ada ini ya akan sama jadi kena kerja banyak malu, kau kau kau dah boleh berkuasa ni dia begitu faaw nga góorgóorlu góorgóorlu googu ngay góorgóorlu nag faaw moo lay jox yow beneen waaye lii ma ne sutu lii mënuma ko lii ñu sutale te lay te la nit di delloo gannaaw bala mu gudd du du ko du ko am ko ndax ci ci di si ci dara ba ba man am na yu ko jiitu woon lu ne la daal lu ne la daal doon waaye bu tey bii ne sëriñ bi moom moo ci loxol loxol boppam jàpp ma jàpp ma loxol kenn lu dugg ni te kon la tax may wax loolee fa foofu la yem ñu ma jàll ca la ja ku may waxee waaye tey jii de mel na ku fi ñëw tey war ngaa sant bu baax a baax war ngaa sant bu baax a baax a baax su ñëw gi nga ñëw fii tey ndax fii man man damaa wax loolu yi saa kër ga ne de fii du saa kër fii këru suñu borom waaye ñu ngi julli Niente la causa del... Niente oro. Niente del paura. Io, io, io vedo che una cosa è sentore. Con... Con del... Una cosa di... Non vedo una cosa di... Vedo una cosa di una gara per me. ليالي ليالتك سمع ربك لا سبب لاري بقى لك فهو يالي بقيلة سمع ربك لا معلوم يا بقيلة يلا يتوقع فهو بقولك هذا هذا خير أدمي نجيك يا رجيم ನಾನು ದೂರದವ್ರಿಗೂ jam ya dewi tewa mana nabi tenek tijarun dari kuya dewi dari Allah min kuya dewi mami gana jak bela kau boleh kena nyari berdaya bela kau kau ya boleh kena dasun bubu aki tu bayam bela kau lola kian mun kau kam wa ada lewur ni hatta wa bani taw boobee doo xam lu ko sabab te ndox mënta naawal boppam suuf mënta naawal boppam kon leneen a ko naawal loolee nag suñ borom boo kii boo boo boo booy booy waxtaante suñ dina xamal boppam saafane te dañ ko mën xam mukk mooy fan yi jàpp ne nee la war a mel daa melul ndax boo boo boo séenee dara rek du moom kon loolu seen rek du yàlla du ko xam ne boo ko xoolee gis gis ko boo ko làmbee daj ko boo ko wooyee mu wuyu déedéet borom melo boroomi melo waaye melo bokkut ak melo yooyu nga xam ne melo yu bind la mooy noonu bëggante lool bennoo lool te lu waaye am ಕೊಡ್ತಾನಂತಾಗ ಕಿಸದ ತಂದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಿಡಿ ಕೆಂಪದ ಸಕಾತನು ಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ dari dunia penama sahya dari sehingga dunia sembang bangnya Yenya kuwa menasih sekian dunia ku doon jaamu yàlla mu ne gannaaw man de nit ñi dañoo bëggoon a yàqal ndax jaxasoo nit ñi yàqal la te na dinaa ku ne dama waroon yow dinaa ko jox maa ngi dem ca àll ba man fekk fa loolu mu dox ba dem jëli jumaa ay bis dara lépp naa la di ko mu ne suñ li nga waxoon moo tax ma def nii mu ne ko waxal lu nga dem ci àll ba dama ta say doomu aadama faw nga ne danañ la ca jox loo ma waaye néew doon nga bàyyi ñëpp nag ñëw tëdd ci àll kon nag dëddu àdduna du ceegee nag bañ a lekk bañ a naan mooy wattandiku am bàkkaar bàkkaar nag ba ca ba ca gën a gaaw te gën caa bon mooy xas sa moroom ku nekk nay nay daw nay daw xaste ak rambaa dante yooyu dara nekku ci du la may yàlla du te ñaan ko at mi nga xam ne moom ciy dugal nii mu wax kat te at yi nga xam ne jàmm cay jëkk ak ak njariñu boo xam ne ak Rabbana ah. jangan doa Allah wayangan iya, tidak jawab dewi kekian banjir tawat banjirnya bini digen te dan yakan te sama lo karena aku sunu borong jabal ya, bisri